ñun ñi bokk li ñuy def ñun ñépp ay xarit lañ moo tax kuy dox suñu diggante rek tax ci jàmm damaa masa ànd ak oustaz am ko ma di jëw Pape An ma def ko may léegi mu naan ma doo seen moroom yaa leen mën ba ci Pape An yaa ko mën ma naan Pape déglul est bu mu àggalee wax ba daaneel ni ma boobu sama numéro nañ ko enregistré ma ne ko xaaral ma paas la pap ba pare nga doog a enregistré mu ne karaj coupé ma xam ni lu mel ni yàgg na fi sëriñ seex Tidiane si nee na dañ ko daan seet si ba mu ubbi ñu ne ko sëñ Abdoulahat mbaa yëg ma ni yow rek la bañ buñ ca jógee dem seeti sëñ Abdoulahat ñu ko mbaa yëg na ni Serigne Cheikh yow rek la contre sëñ Cheikh nee na li ma yor ci ay lettre yoo xam ni ñi ma koy bind kenn xamul nu mu toll te benn kàddu rek lañ may wax muy murit yi yow rek lañ bañ sëñ Abdoulaat ni ko loo yor ci lettre rek yor naa lu ni toll mu ne ko waaye na xam ni ñi koy wax duñu murit duñu tijaan ñiy yàq ñëpp kenn xamul lu ñu doon waaye ñun yàlla dimbali nañu ba bi nu xamee ni li nu bokk mënuñu ko séddoo ci la ñu boole suñuy xol nekk benn